<laughs> gars yi tàgg ma tuuti <laughs> voilà voilà voilà voilà voilà jaajëf incha allah kontaan nañ ci yow. Euh, ñu dañu fii am euh, kii la santé la santé la aca aca jël leen santé la wane leen ñu santé la ñu dañuy santé parce que lii moom stop bu fi ñëw de. voilà jërëjëf non li nga doon wax c' est très important coach. waaw li nga doon wax léegi nii. <laughs> waaw c' est très important parce que yow tamit foog gars yi war laa tagg. ah waaw waaw waaw ah gars yi wax nañu Moussa Ba. Eh, waaw kii tamit toj na. ayca yow man dama fi xay tojal espoir bi yow. ah voilà. <laughs> waaw jaajëf waay voilà jërëjëf. Euh, xibaar bi. Euh, mooy actualité bi am ci euh, sport bi. Euh, di loolu euh, mu ngi génn démb. Mhm. démb dañoo gis ne que journal l'équipe mhm. bi nekk France mooy journal sport sportif bu gën a rëy. Mhm. Euh, ci tey boo sax nee nañu c'est le journal le plus vendu en France. l'équipe journal c'est le plus vendu. voilà crédible voilà moom moo fësal ne mu ne suñu entraîneur adjoint tubaab bi. kii di jàppale Aliou dafa signé à Amiens mm-hmm. bi mu amee journal sénégal itam mm-hmm. ñëw affaire boobu jaaxal leen ñu ne ah kon xanaa waa ji moom nekkatul entraîneur wu Sénégal mm-hmm. adjoint wu Sénégal ba dem di signé contrat feneen euh, loolu yëpp léegi nag moom ci boppam mu ne mu dëggal affaire boobu waaw mu ne non moom waxoon si mais moom dafa ne mu ne Euh, dafa mentalu équipe boobu moo soxla mental euh, mental moom loolu moo tax moom mu dem foofu. waa pour jàppale leen kii la ce qui veut dire wax na tudd ko mais wax na ne que dem na signé na mais waxu tudd ko. Mhm. mais bi loolu amee automatiquement mais xam nga Moustapha li gën a jaaxal dans cette affaire là. Mhm. affaire bi du démb de affaire bi du démb loolu man foofu nag man foofoo ma métti affaire boobu du démb. affaire boobu. Hmm. bi koy likki likki boobu affaire bi am na bu yàgg même am na avant que hmm. l'équipe di koy bind. dégg nga avant l'équipe di koy bind hmm. loolu am na waaw léegi <clears throat> kon dañ ko doon ndëppal ndëppal soit un des deux dañ ko doon ndëppal ndëppal parce que journaux yu bare li ñu bind moom mooy affaire bi amoon na naka la. ñu toog ba léegi il a fallu que journaliste yi interpellé maître Augustin Senghor mu soog di ci wax tu as vu mu soog a di ci wax ne euh, oui euh, euh, bon euh, on est kii euh, euh, pas au courant mais li ma mën a wax mooy que Régis Bogart mu ngi sous contrat ak fédération loolu la loolu la met loolu la wax andiwul explication ci loolu man xaarewuma ko foofu man boog sama bopp laay wax man xaar xaarewu xam li ma doon xaar moom mooy mu wax ñu en réalité le fond du problème le fond du problème moom mooy Régis Bocard Bocard naka la mën a demee fële ba sax commencé dégg nga te ñoom ñii mënuñu kay yëg et comment du ma wax a gum sax maître Augustin Senghor mais moom patron Résiboka kuy patron Aliou Cissé kon te ñu wax ne que moom ak Boga Résiboka li ñëpp jàpp depuis bi ñu nekkee mhm. ñoom ñaar dañoo yàgg depuis yàgg nañu du tey jii nekkoon na entraîneur yàgg nañu kon nag euh, ñoom xamoon nañ ko xamoon nañu mbir moom ne que am na que que tubaab bii. pour yow Aliou Cissé mën ko bañ a yëg. man boog voilà man loolu laa wax man dañ ma interpellé loolu dama ne. Mhm. Aliou Cissé yëg na ko. yéeg na ko mais léegi nag ñoom te man Aliou Cissé bu ko yëgee dans les normes ah boog sama xalaat li waxoon am bi loolu amee ñoom ñu waxtaanoon ko soit un de deux yéguñu ko ki da def euh, cache-cache kon il a fauté man loolu laa jàpp man man man man ki man li may euh, pré leen la léegi gis naa tey jii ci presse bi lan euh, affaire bi évolution ñu ne moom nee na renoncé na bàyyi na. bàyyi na Amiens. voilà bàyyi na Amiens delluwaat na. renoncé ah man de waxu tubaab lay wax Moussa Wa bu dee juum naa ci loolu renoncé moom mooy bàyyi naa. bàyyi naa waaw ah. ñëwaat naa toog nit kay du renoncé lu mu bokkul woon. mais ah tu as kon renoncé na. delluwaat na fii. waaye man Moussa Wa ni am fulla waay <laughs> équipe nationale du Sénégal la wax. affaire réew mi la kenn du yàpp réew mi. di nga nekk contrat. Mhm. man duma nekk contrat ak Walfadjri ba pare. Mhm. dem ci beneen télé. di signer contrat di fay signer contrat. dama lay dàq. bu ma ñëwee fii dañ may dàq. loolu mooy logique parce que da ngay mhm. parce que l'équipe nationale institution la. du affaire u caaxaan du club du nangam institution la dàq ci biti. waaw demande nag à ce nag euh, kii nag mu expliquer Euh, kii di Aliou Cissé. Mhm. parce que c'est pas normal loolu yow sa adjoint di dem. Mhm. expliquer ñu wax nu ndax yëg nga ko wala yëgoo ko. et puis beneen affaire. Mhm. mooy li ñuy reprocher fédération sénégalaise de football la communication n'est pa bonne. yii bu amee. da ngay expliquer ba léegi coow laa ngi nii xool bàyyi nañu polémique bi coow laa ngi am. waaw doo toog ñëw expliquer booy toog yow nga ñëw toog soit nga euh, euh, président bi toog. directeur technique bi toog mhm. ou bien président bi toog entraîneur Aliou Cissé toog ñu wax mhm. journaliste laaj de parce que y' a beaucoup de questions comme man naa ngi nii xam nga man naa ngi nii. Mhm. man nee na man taxaw naa carrément ne Aliou Cissé yëg na ko. léegi nag nañu ñëw. leeral leeral. ne eh Cheikh Tidiane Gomis li ngay xalaat de non non man de yëguma ko. Sénégal ñëpp xam ne que moom yëgu ko waaye man dama jàpp ne yëg na ko kon nag voilà euh, loo xam ne. ci biir équipe nationale. mooy euh, ay ay ay ay ay affaires yoo xam ne day am am avant boobu sax pour wax leen euh, <clears throat> li gën a grave ci biir équipe nationale mooy dañuy ndëppal ndëppal ay affaires du ñu leeral euh, bu match Sénégal d'après les journaux. Hmm. d'après samay confrères match bi bu amoon Sénégal Guinée-Bissau bi hmm. Mbaye Niang du bokk. Mbaye Niang bu ren. waaw du bokk. Hmm. dégg nga. lu tax waaw Mbaye Niang du bokk. parce que euh, kii wuñu ko euh, wuñ ma. Euh, convoqué wuñu ko waaw convoqué wuñu mais lan moo tax convoqué te Mbaye Niang mais temps yi moo yoxe ren. ah oui. voilà la question Mbaye Niang parce que ñun xam nga. man li may defar mooy. yore ren bu Olympique de Marseille xel mi nekk ci. voilà voilà temps yi moo yoxe ren mooy dugal. Mhm. nee nañu woon na bu doon Sénégal gën a am na kon mbay Niang. convoqué wuñu ko lan moo tax. parce que am na fu ñu bind ne moom moo wax ne bëggul ko il a il a refusé la convocation. moom mu wax ne mësul am. voilà moom laa leen day non di. des non di mm-hmm. yaa ngi yéen a ngi bàtte fii mbay ñaa gaañu na gaañuwul Aliou Cissé waa waaw dafa gaañu. am fële ne déet musul gaañu. doomu gis Stéphane. voilà doomu gis Stéphane du dégg ngeen loolu. Mm-hmm. nga xam ne ci biir day am ay affaire yoo xam ne mm-hmm. nit dafa baax. lii du jaraaf <laughs> lii du gore lii du njàmbur mais xam <laughs> la équipe la ñun suñu équipe la mhm. suñu xaalis la mhm. dañu war a expliquer mhm. woote ne e lii moo am lii moo am lii am Aliou Cissé mës na toog ak man di may wax mooy temps yi nga xam ne euh, yi ko yi mu doon jël euh, convocation yi di ko def Facebook bi mu ko defee ma taxaw man wax mu ne ko mu ne ko moom tegu ko fen suñu xaalis la yore ñu ñoo koy fay day génne population day day à travers conférence de presse comme ni ko ñëpp di defee di kii Aliou Cissé m'a appelé di jéem a justifié wu mu ne ko tegoo ko fen fenn d'accord ma li nga wax li nga wax tegu ko fenn amul fenn euh, yow li nga def nii de change sañu kaa def France entraîneur wu Allemagne bi sañu kaa def mais c'est que euh, la communication. mais mais, mais communication boobu ngay wax coach aussi euh, ban problème ngeen am ak ñoom parce que bu fekkee yeneen yeneen télé la moo xam euh, Europe la wala Afrique dañuy seetaan ci yenn chaînes yi journalistes yi dañ leen di invité dañuy ñëw dañuy communiquer dañuy waxtaan dañuy répondre ci ay questions mais lan moo tax fii toujours ñu war a am problème mu génn communiquer ak journalistes yi. dañ ñoo diaboliser. ñenn ñi bokk. waaw kay. <laughs> ñenn ñi dañ leen dan dan laa diaboliser. voilà à <laughs> commencer par <laughs> ñu conférence de presque si yenn bopp yi. waaw non dëgg nañ ko parce que bopp yooyu dañ fi ay questions yoo xam ne ñoom pour ñoom ça mm. waaw ça les dérange naa fi sax benn conférence de presse Aliou Cissé. ak euh, xaw ma kan euh, Aliou Cissé ak Laye Sow toog maa ngi koy wax ñu ngi may dégg xam na ñu toog man ma toog fële jël parole rek ma gis ñoom ñaa ñuy wokkante di waxante <laughs> waaw def nañ ko mën naa ko wax waaw parce que xam naa li ñu doon wax mooy mooy eh, eh, waaye dof baa ngi waxaat <laughs> xam naa yoo leen koy wax yoo leen ñuy wax <laughs> waaw lu xam nga loolu li ngay wax se tellement vrai parce que dañ koy gis même ci bu bu ñu jugee coupe du monde wala coupe d'Afrique buñ buñ ci ñu ci paase bu ñu ñëwee dañuy gis ñu yeneen télé am na ci ay télé yoo xamante ne dañuy invité joueurs yi dañuy invité entraîneur bi dañuy ñëw toog plateau journaliste bi toog wax ñu ñu répondre et tout mais am na télé yoo xamante ne doo leen mës a gis ñu teg fa seen la seule personne à la fédération sénégalaise de football dama koy wax baat ca kaw loo ko munti c'est le seul à la fédération lu am lu neex ak lu nax rek lu am coow lu am tele boo ko télé boo obligé gis ko fa moom mooy laay Laye Sow Ablaye Sow ragalul ragalul billahi wallahi taala day ñëw de ba même bu dee ñoom def nañ toj-toj dina ñëw wax ci toj bi ngeen wax ci yéen a xam xaw ma da koy gëm wala doo ko gëm il est le seul mais est comme yow nii waaw est-ce que une fois mës nga euh, mës nga mës nga essayer euh, invité yi euh, wala nga invité voilà bu mujj bi bu mujj bi fii la ñu invité lundi lundi lundi passé mhm. ki toogoon fi ki ma invité moom mooy Euh, présidente commission football féminin. Mm-hmm. xam nga ñoom ñoo jëloon pour la première fois Sénégal gagné benn trophée ci mm-hmm. football féminin. Mm-hmm. Euh, bi ma koy invité. dama ko woo ne ko ah ak jaloore bi ngeen def daal petit déj daal dañ bëgg a invité mais gis nga procédure bi xaw naa de léegi nag moom mu ne ma waa ok d'accord waa xaaral dinaa confirmer njëkkate woo dafa dem woo Karaatoun chargé de la communication Karaatoun ne man dama wax de li ma seeni wax Karacu ne ko xaaral ma woo Augustin. rien que pour ñëw petit déj. waaw pour ñëw petit déj. bi daal ah ñoom na ko xaaral ma woo ko parce que xam nga rek fii nangam ma toog toog toog toog toog ba guddi ba ay vingt ma ne ah waaw ma man ma woo euh, seeni mu ne ma waaw woo naa Kara nee ne day woo Augustin ba waxtaan ak moom ba pare ma ma ji sama tar woo Kara Thioune <laughs> ne ko Kara. seen protocole boobu loolu lan la lii xanaa du émission rek wax laa nga wax rek la. Hmm. mu ne ma non tu sais ici en équipe nationale. mais quand il s'agit non non non trophée en plus ça. waaw waaw trophée ils ont fait. non attends mais invitation bi su fekkee coach la. non non attends non attends uy ma ñoom uy ma. xam ñoom def loo xam ne. dañoo def loo xam jaloore lañ def. jaloore lañ def léegi nag man ma sotee ci occasion bi ne ko kaay hmm. mais il a fallu que procédure boobu. waa xaama laaj diw xaama laaj diw xaama laaj diw mm-hmm. mais c'est comme ça parce que kenn nga ciy woo mm-hmm. boo moom boo ko wooyee mm-hmm. moom sax boo ko kiiyee boo ma sax lan euh, boo ma sax moom moo ñoo taxaw seen kanam moom ma Ablaye Sow le reste dañuy daw mën naa ko wax ah. man d'accord naa euh, organisation bu nekk mu nekk fédération de football mu nekk ministère rek lu nekk organiser sa communication parce que sinon ça part dans tous les sens ku nekk d'accord naa ci loolu mais comme dit Cheikh Diane dafa am benn protocole boo xam ne dama gis lu ko fi jar man oustaz mi moo la ko mën a confirmer bu fédération rek Sénégal ci boobu cest que ñoom ñoo jël léegi wàllu invite ni télé ñu la ciy dugal ci benn protocole boo xam ne am na ci organisation yoo xam ne yaa a deux oui le contraire bi la waroon doon y deux y yoo xam ne y a non partout y' a des organisations yoo xam ne yàggul dara. Mhm. oustaz man li ma lay wax yëpp mën na ko parce que c'est lié au cœur de ça. Mhm. yàggul dara. dañu la daan topp sonal la pour nga invité leen. mais tu sais par quelle magie benn da nga soxla kenn benn jour rek laaj ko peut-être parce que. am na lu fi xew peut-être dem na kaso génnaat peut-être xaw ma mm. mais da ñu dugal la ci benn ne. noo taxal ñu woo diw parce que dañoo waxtaan suñu biir. Ah, wala di way wax nangam la may leen may attaque toog leen seen kër quoi. boo waxee yow boo waxee ñu naan ah yow dégg nañ la li nga wax du nii. te moom moom mi ñëwul toog moom laa di expliqué parce que parfois ça ça ça frise même ça frise même le le dire que mm. nit ñi dénk la lu toll équipe nationale bu Sénégal. Mm. ñu fi jël ay décisions. Mm. nit nekk ci mën na nekk sous contrat dem signé ji contrat feneen. Sénégalais di wax Cheikh Tidiane di wax xëy na li muy wax am na xaw amul. keneen toog ci beneen télé di wax. yow nga xam ne tu au cœur de l'affaire. yor la bonne information. nga ne mukk toog nangu woo leen ko wax. ça c'est c'est du mépris quoi pour ñi nga xam ne ñoo la li li nga li nga yore. def euh, joxe la liste des jours économique bu France deux choses soit il appelle à une conférence de presse journaliste yëpp ñëw toog mu lire liste bi ñu laaj ko lu tax mu woo diw lu tax woowul diw yenn saa sax ñu laaj ko question bi mu gën a bañ mooy lu tax woowul Benzema te a chaque fois question bi day ñëwaat par force. waaw dañuy tontu par force. mu neex ko mu naqari ko. Mhm. mieux que ça le journal L'équipe bi muy tudd nii. Mhm. bi euh, France ñëwee euh, Afrique du Sud. Euh, seen coupe du monde 2010 l' affaire Nice na ak bus ba yu demee noonu. Mhm. mais journal L'équipe moo révélé li nga xam ne moo amoon ci seen biir. vestiaire bi ñuy saagante. journal boobu daanaka. waxuma sax euh, euh, euh, les dirigeants du sport même la presse sportive en France daf mel ni dañoo quarantaine noon journal journal boobu mais teewul benn yoon mhm. nit mën a oser mhm. def une conférence de presse di wax ci équipe nationale de France mhm. sans un journaliste de l'équipe ñëw toog wax wax li mu bëgg a wax parce que c'est ça mm-hmm. le respect du métier que nous avons mm-hmm. c'est ça le respect de la liberté d'expression de la liberté de mm-hmm. presse bi mu doon tudd bi ñuy commencé mais malheureusement au Sénégal on pense que peut-être Cheikh Tidiane Gomis li muy wax neexuma su ma woowee émission du ma mais ñëwoo pour faire plaisir à Cheikh Tidiane Gomis da ñëw parce que y des centaines de milliers de Sénégalais national mais ñooñu ils ont droit ñëw wax ne li nga xam ne moom moo xew parce que uh-huh. seen alal lañ la dénk uh-huh. ngay yor seen yëf uh-huh. non seulement man li ngay wax ni daf may dal parce que mm-hmm. man chaîne internationale yi bu ma ci zappé woon léegi mm-hmm. ba gis ñu invité ci benn jour wallahi azim du ma la seetaan parce que chaîne boobu moom ma intéressé wul en fait man je préfère que benn Walfadjri benn TFM benn Sen TV. mais bien bu la invité ñu laaj la ci suñu kàllaama nga tontu ñu dégg xam li ngay wax. Aliou Cissé ak la fédération ils l'ont fait pendant la Coupe d'Afrique. Mhm. man bi ma laajtee dañ ne ma non. Euh, Canal Plus dafa nekk en contrat ak mhm. euh, la CAF wala en contrat avec la fédération lool lépp baax na parce que mhm. football business la c'est beaucoup d'argent mais quand même ñu ci équipe nationale bu Sénégal équipe nationale waxuñu Njàmbur de Louga waxuñu GIA équipe nationale bu Sénégal nation bee ko moom nation bi mooy jël xaalisam di ci def mhm. donc télé yi nga xam ne ñoo ni ci réew mi ak contrat boo mën di signé mhm. waaw war nga leen sóoraale sóoraale oh. leen mooy mhm. sóoraale sénégalais yi nga xam ne amuñu accès ni nga amee accès ci chaîne international yooyu suuraale leen mooy soo signé contrat par exemple ne da nga am exclusivité ak benn chaîne bu la neex war nga leen ne ah man kët une équipe nationale laa yor buy sol vert jaune rouge dama am possible ah, obligation di rendre compte mhm. ñi nga xam ne ñoo nekk sama réew te ñooñu mhm. mhm. Walf Fadjri la ñu seetaan TFM la ñu seetaan Sen TV la ñu seetaan RTS la ñu seetaan 2S et cetera et cetera ñooñu donc même bu dee cinq minutes ameel naa leen ko pour wax ak ñoom mais malheureusement les gens le business xoolal li ngay wax dama la dëggal xoolal France tf la gis nga dans les normes li waroon am li waroon am mooy que dégg nga euh, mu am benn kii contrat d'exclusivité bu muy def ak RTS parce que moom mooy télévision nationale. Mm. da koy def mais ba pare ne ñeneen ñi nag tamit moom mu am lu mu leen jox. Mm-hmm. mooy fii mais mm-hmm. doo gis. Mm-hmm. Aliou Cissé bu paree. France lay wax. tegu ko fenn. foofu rek lay wax. la plupart yu muy wax yu bare. mais yéen tamit euh, côté boobu journaliste yi euh, amu leen ci benn euh, part de responsabilité. luñ def su fekkee war ngeen. <laughs> est-ce que <laughs> moom mi ngi ci mi ngi ci mburu bi pareegul. <laughs> est-ce que est-ce que yéen a ngi poser question les bonnes questions est-ce que yéen a ngi koy poser. Mm-hmm. que que que nekk détourné xëy na affaire bi yóbbu ko feneen. Mm-hmm. laaj nit ki li nga ko war a laaj mu tontu la lim la war a tontu ku nekk jàll aussi. billaahi. damay <laughs> kenn mënu ko weddi. question yi ñu koy posé mooy question d' actualité. c' dafay am question yoo xam ne. sensibiliser bëgguñu ko bëgguñu ko. mais Cheikh au delà de ça sax man dama dama jàpp ne wolof mooy wax ne fulla mooy jaay Dakar. Mhm. waxambaane. Mhm. bu ko bukk yebee ca doxin wala. gis nga président yi ci àdduna bi yëpp yëpp yi am fulla yëpp fu ñu mënti dem ci àdduna dañu am seen presse. Mhm. boo xam ne suñu ñëwul du wax. tey Sénégal gii muy suñu équipe nationale muy suñu président de la république waroon na am fulla ju toll ne mhm. am une presse nationale xam nga Wade amoon na fi idée wu créer mhm. benn bureau de presse palais mhm. nga xam ne Walfadjri day envoyé journaliste boo xam ne bu xëyee palais lay dem boo bu xëyee palais lay dem di fa xëy bu Ablaye Wade dee dem bu ànd ak moom bi mu ko émettre idée bi la presse n'avait pas aimé parce que dañu ragal ne waaw am na ay accointances yu maanaam peu importe mais man dama dem Gorée bi fi George Bush ñu ne ñu il faut ngeen àgg gore à secteur heures. Mhm. donc il faut ngeen jóg 6 heures du matin pour mën a jël chaloupe bi expliquer. Mhm. nga jóg 5 heures du matin. Mhm. sangu sol say yére jël taxi àgg fa chaloupe bay départ yéeg dem ba ca gore ñëw taxaw secteur heures. fekk ñun ñëpp ñu taxaw. ñu naan sax xam nañu ne américains yi wax. on attend la presse de la Maison Blanche. <laughs> c'est-à-dire que presse Maison Blanche boobu. bu ñu duggul gore presse Sénégal bi dëkk gore dafay yeewoo duñ ko dugg. ñu taxaw fa. presque Maison Blanche ànd ak Bush jóge aéroport dem pale ñu ñoo nga gore toog de ñu bu juge pare euh, le temps Bush di di jëli bagage waxtaan ak Ablaye Wade presse am euh, Maison Blanche boobu déparé euh, fii pale dem jël chaloupe bi ñëw fekk ñu fa ñu taxaw di leen xaar ba ñu ñëwee ba ñu xool leen ba ñu dugg ba jeex ñu ne ñu yéen man ngeen a ñëw mais li ngay wax nii c'est grave. maa ko fekk eh, maa ko barke maa ko fekk. Eh, moo ko jeté là-bas. sa dëkk ngay jiital. loolu mooy loolu mooy fula parce que la presse de la Maison Blanche boobu ñuy wax mooy dañu jël euh, les différents les différents les différents journalistes oui oui teranga euh, baago les différents journalistes la ñu jël defal leen benn bureau à la euh, fële président Maison Blanche ñuy def seen liggéey te ñooñu ah, différence ak ñun mooy George Bush jéewu leen a xool wax leen lu tax ngeen wax nangam xelam xalaatu ko lu leen neex la ñuy def kenn du ko xalaat ñooñu fu Bush di dem suñ ñëwul du dem enfin ak Trump la tudd léegi mais président Amérique fu mënti dem ñooñu suñu ñëwul du wax même Macron c'est comme ça te gis nga gis nga bi ñu ñëwee palais la presse de la Maison Blanche la ñu ñëw taxaw palais man boobu gore laa nekkoon mhm. yeneen journaliste ñoo nekkoon palais mhm. mais journaliste palais bi bi ñu ñëwee xam lan leen wax euh, Babacar Diagne bu CNRA moo ñëw ba ci ñoom ñeneen séema gars yi parce que Sénégal la comme ñoom te yàgg na Amérique xam na la fa xew ñu mhm. leen gis ngeen ñii ne ci kaw ni yore fetal ku ci bougé dana la ko dóor mhm. tey bu ku nekk yam fan la yam loo seen liggéey <laughs> ah ku nekk danga nga yam fan la yam loo mhm. fii di grave xam nga maa ngi lay wax presse bi bi ñu ñëwee ba taxaw ñun ba presse maison Blanche war a ñëw xam nga nu américains yi def dem jëli Joseph Ndiaye ma nga xam ne moo war a ànd ak président yi di ko wan di leen expliquer gore Joseph ak mi amoon dañ entrée gore fa chalu bay taxaw mhm. ne ko jaaral ci portique boobu mhm. mu jaar ñu xool ko xool yaramam yëpp ba xam dara mhm. nekku ci doog koy bàyyi mu dem américain yi ñoo ko def gore sama kanam ndax yorewul voilà xam a expliquer foofu mooy mooy balaa ngay euh, dem feneen waxal ak ba pare parce que ñoom ñoo lay jox seen xaalis man loolu laa koy wax bi bi cool yi amee di am dama ko dem ma ne ko eh ñun ñun ñoo lay fay man dañ may dagg. sama bulletin de salaire bu ma ko xoolee foo am na lu ñu may dagg. lu bari waaw lu bari te yow. yow ñu la ciy coppal di la koy fay. man nag dégg nga dama am man dinaa wax dégg nga non c'est que xam nga ndëppal ndëppal bi am biir fédération moom lañuy ñuy bàyyi. loo xam ne dañuy dañuy làq lii. te duñ ko wax nit da ngay bu amee problème man waxuma yow wax ñëw rek yow waxal kan moo la fay fekk ne la. bu wax dóor la déedéet Aliou Cissé dafa war a ñëw dans les noon chaque fois léegi sax mu ngi def léegi ay ay kii euh, wax ma ni sibidi nangam léegi am na si sax boo xam ne ngi dafa muus léegi bu ñëwee waxee day ñëw waxee euh, tënk boo waxee yow boo waxee sa question sax moom mu moom mu waaf sa question man ñaata yoon kii naa ko ba saag mu waaf ma waaw en tout cas war ngeen am jàkkaarloo yéen ñaar. man man man ah, moom il faut ngeen waaw. moom fu ngeen koy defee nag war ngeen am jàkkaarloo ci benn chaîne télé wala nga ne ko na tànn kii nu ñu koy waxee nu ko mbëri waxee na tànn fu mu bëgg ñu bëree. waaw voilà. Sénégal yëpp koy xaar. waaw ngeen dem RTS wala TFM wala fu mu bëgg ngeen dem bëree foofu. pourtant nag gis nga <laughs> amul problème. Ah, non xam nga non Moussa la. bu ñu ne police moom ñu dem. non non pourtant. sincèrement moom ñu dem. public nii nangam kii mais ne man su ma ko buggee wax dara dama koy wax moom su ma buggee wax da parce que ca euh, ca Coupe d'Afrique ba bi ma ñëwee euh, xam nga ñu ñëw euh, ñu ñëw à trois jours match Sénégal ma ñëw ba ca. laajal kii dangay laaj Saliou Bey. Hmm. ma ne Saliou Bey ñu ñëwoon nii ci terrain d'entraînement bi. ma ne ko Saliou Bey kaay taxaw nañu ci wetu kaay comme ça nga mën a jël journée bu baax Aliou Cissé fee la jógee dox dox dox dox ñëw ba ci man ah Cheikh Tidiane ñëw nga <laughs> ma ne ko ñëw naa. musiba am ma ne ko ñëw naa. musiba am dootu leen nelaw <laughs> waaw man ñëw naa. loolu la ma wax mu ne ma ñëw nga ñëw nga kañ nga ñëw ma ne ko ñëw naa. musiba am waaw man de ñëw naa. waaw te yàlla da nga yàgg ñëw ah. ah waaw. ah man ma ñëw liggéey moom mu ngi liggéey na ma bàyyi man ma liggéey man de loolu laa leen di wax ñoom. buñ ma waxee ne waaye yow sax ma ne liggéeyal pour <laughs> ci nekk daa am liggéeyal waaw mais non alors encore une fois pour fermer kii boobu de grâce damay demander à ce que la euh, maanaam fédération mm-hmm. ci affaire registre vocal bi coow li am na na expliqué wu